kon naka lay jekki-jekki di ñëw te kenn boobu ko nee na ma ne ko nattabli ma da mooy dikk nee mu génn ci bunt bi taxaw gàttandu ma daan mooy nuyu ci xar kanam bu tàlli nee na bi mu nuyoo man ko dara nee na mu wax ma ne ma dama bëggoon nga seetal ma li ma li nga xam ne bëgg naa ko li nga bëgg ma defal la sëriñ bi na ko daa ak kayit ak xalima hmm. nee na mu wutal ma ci quantité quantité bu baree bari nee na bi ma ko bindee nag bi ma ko jëlee ba tàmbali ci bind ba tàmbalee bind génn xasida te tënke ko faasat ilaami inda axlafa jihad warutuhu yaquluhu allahu ahad nee na mel na dafa am lu wax ak moom xamal ko ne ko lii nga def ne dafa mel na xiyaanatu la ndax dafa mel na dañ leen a wan lu bokk teg liñ gis kon nag ndegam bàyyi ngeen bàyyi leen ak seen yëf sëriñ bi yaa daal di jël xasi daayaa yëpp gas ba mu xool musul ko ci biir tukkeem boobu itam sëriñ bi wax na ne am na bis ñaar ñoo xam ne dañ doon xuloo ngir jëmmam nee na fi mu tëdd ci biir néeg bi mu dégg ñuy wax nee na dégguñu wolof bu baax waaye ci kàddu yi mu xaw koo fàttali Sénégal nee na namm gi mu xaw a namm Sénégal rek suñu borom daal ko jëtee teg natt bu diis ci biir lool nag mu jéggaluwaat suñu borom بنات القصيدة تنك وقتنا نشط بشكر شكاية فلا أشكوله دري ودري أفلا مرسلين تبا فم نرى جنب ترك دجل أكتن تفا كون مون كو فون كون سنتي الله مور خم بيرم ييب دار موسي ген سنتي الله كون بيس لا بو خم نه سنتي الله امنا سي سون لول تا سنتي الله بوك ني سي جامو يال دي گنا ماغ ndax moy xam li la sa borom defar def nga delu ko ndax kon magal touba ci wàllu diine bokk na ci li muy def ci nit ñi ku fa juwe ku ne da nga yëg na sa diine yokk na ndax barab la boo xam ne ña fa jëm ñëpp la leen yëkkati tax leen a jub mooy dem di santale Serigne Touba ci bis bii nga xam ne ci la ko suñ borom mayee mboolem lu mu ko may kon njàngum alxaan ba ñu fay defee yëpp nga xam ne day sellal roo di sellal bakkan di jël jëmb itam di ko jëmale ci àdduna ju suuf si suufe si jëme ko ci àdduna ji gën a kawe kon loolu mbir la moo xam ne mu am solo la ci wàllu diine kon jaamu yàlla gi mooy li ci ëpp solo nañ xam ne moo taxoon Serigne Touba woote ba nekk ci ñëpp sant la yàlla ci wàllu social itam ku ne xam na ne lu am njariñ la ci réew mi ndax bokk na ca dana indi ouvertir bu mag ci mboolem waaso yi ak xeet yi ci biir réew mi du fa xàmmee kenn ne wolof la ولا سيري لا ولا توكرو لا ولا كيران نيب رك بن ميشن لين ييكتي امول لين تخجو منو سي خامي كان كون لولو بوكو ني سي لي غينا اندي اك بنو سي ريو منو فا خامي تام كي سي مصاب امام مالك لا ولا كيران منو سي خامي تام كي سي الطريقه المريديه لا بوكو ولا الطريقه التجاني ولا الطريقه الخادريه دا نك بوكو دون سيت مريسنا واخني لي مي am na ci ñoo xam ne du ñu ay murit waaye day ñëw ngir màggal kon loolu itam bokk na ci li gën a benn réew mi bokk na ci leen di gën a boole parti politique yi itam ñi ne ci pouvoir bi ak ñi ne ci kujj gi mënoo cee xàmmee kenn kenn ku ci ne la ko lam la bàyyi da koy denc ñëw xam li ko tax a jóg nga xam ne boo leen fa gisee doo mën a xam ne loolu itam kon ci wàllu social amal na njariñ réew mi bokk na ci leen di gën a boole nga xam ne ña fa daje ñëpp jénn yit rek leen tax a jóg mooy santale Sëriñ Tuubaa boroomam ci bis bi ak mbégte mu daj moo xam ne koo gis ak jàmm lay ne di wax salaaman te loolu bokk na ci li nga xam ne lislaam da koo gën a fonk loolu ba ba ca topp li ñuy wax tolérance bari na nit ñoo xam ne ni ko Sëriñ Xaadim doo waxee bi may jiitu dangay gis ñoo xam ne seen relation foofu lay wala ñaar ñoo xam ne seen diggante amoon na lu ci newoon waaye bu ñu dajee ci màggal gi rek kenn ku ne la nga jàppaloon sorom da nga koy fàtte kon loolu itam bokk na ci aspect social bi nga xam ne amoon am na ko njëriñ ci réew mi kon nag màggal Tuuba xam ne ci wàllu diine ak wàllu social am na ci njëriñ wàllu ci wàllu économie itam yaakaar naa loolu jërul ma di jaaraat ndax professeur Moubarak Lo leeral na ko ci fànn gi nga xam ne am na ko ci lu mat 4 millions de personnes yoo xam ne ci liñ mujj xayma waxees na ne mat na ko te muy loo xam ne ni ko ñenn ñi di waxee rek ngir yàq derub yoon mu wër wala ngir umpale ko jàpp ne dañ fay ñëw ngirub yàq wala dañuy conseillé waaye amuru njëriñ réew mi loolu itam yaakaar naa jërul ma di soriwaat ndax liñ ci leeral doy na sëgg kon nag màggal bi euh, xalaat bii nga xamee ne waa comité bi am nañ ko te Serigne Abdou Lahad Mbacké ibnu Serigne Cheikh jiite ko ñu def ci xalaat yi muy ci nit ñi gën a xam màggal gi njariñ li nga xam ne am na ko ndax nit ñu ko waxee léegi rek am na ñoo xam ne boo leen tëb tëboon laaj luy màggal duñ xam lu mu doon wala ñu am ñu dem ba di ko jaawale di wax naan muur yi di ñoom dañoo am seen màkkee bopp te loolu amut màggal gi du ak du aju màkka màggal gi du ko tax a jóg mooy santale Sëriñ Tuubaa boroomam ci bis bi nga xam ne mboolem natt yi mu ko teg ci la ko ko defee te it Serigne Touba itam ba mu ñibbisee itam mboolem lu ko tubaab yi tegoon ci aw naqar ak utiis da ko fàtte jéggi leen wax ne jéggi naa samay moom yëpp loolu itam di jàngat bu rëy boo xam ne war na cee mën a jàng lu bari muy loo xam ne itam ñu xam ne itam taalibe yu jóge fii ak ci àdduna sépp di siyaare si kenn jox leen paas ñoo daggal seen bopp paas jëlee seen bopp lañ fay dundee. mboolem lu ñu fay def rek ñoo koy dajale seen bopp kon nag yaakaar naa loolu volontaire ak bëgg Serigne Touba ak dàkk bëgg-bëggam ak xër ci moom ak xam loole itam lim leen di jariñ lim leen di jariñ mooy li tax mi di ko def ndax ni ma ko waxee woon daaw ci màggal gi rek wuy si gi ñu wuy si gi ñu wuy si Serigne ñàkk gi ñu ko ñàkk rëccu moo garanté woote Serigne Touba kon nag ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ñu tàbbi ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin te mboolem jéeg yi ci waaye defoon rek suñu boroom mi nga xam ne mboolem lu ñu def rek sàkku tuyaaba ak yaakaar yërmande ak njéggalam moo tax ñu di def day yuñ ceeg tawfeex ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp mboolem ku fi jël kàddu ak mboolem ku fi teew itam ñu ngi lay sant di la gërëm ci turu sëñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu